xaccant yaa seex xasan sab soppe moo la way di ñaan ci barkeb sëriñ tuuba fa yàllaaw xaccant yaa seex sab soppe moo la way di ñaan ci barkeb sëriñ tuuba fa yàllaaw bur yàlla jéggal ma mboolem zan bu yi ma fi def xamdan ba biir bis peñ ci bur yàlla maa ngi dagaan ci barke Seydi Hasan salaam waafiyatan ak barke yàllaawu alhamdulillahi rabbil alamin sëriñ Hasan salaam ku la bañ naari yàllaawu saa xol bi jox naa Seex Hasan salaam mi ma ndax yàlla tabal ma fil jannaati yàllaawu xam-xam bu sell ak sañ-sañ bu mu am du tax mu naagu ba moy bur yàlla yàllaaw haa cant yaa seex asan sab soppe moo la fi way di ñaan ci barkeeb sëriñ Tuuba wa yàlla ba muy xalel daan def kéemaan yu rëy yi ñu yéem ba waajuram jaaxle woon ba yee muy yàllaawu ñu jël ko yóbbu ci sëñ boo xam ne man na mbiram ñu dem baaj ba mu jaaxal sëñ ba yàllaawu keroog la sëñ asan keroog la sëñ booba def ñaanam ba bind ba teg ne ko jox sëñ asan cey booba yàllaawu ñu jël yóbbu ci sëñ boo xam ne mën na mbiram ñu dem baaj jommal sëñ ba yàllaawu keroog la sëñ booba def ñaanam ba bind ba teg ne nañ ko jox sëñ asan cey booba yalaaw sëriñ asan daal ne leen sëñ bii del yi mu ma jox du doon lu may jël di naan lii wóor ne yalaaw mu daal di wax wax ju rëy joo xam ne yéem na sëriñ ban yóbbu woon sëñ asan lii leer na yalaaw mu naan ko xam naa la lool yow mii xamul gis naa la baabul xunóot ca yàlla yàllaaw man bokk naa ñala doon faral keroog sa kurus bis ban daggee maa nga woon foofee fa yàllaaw banaa fa yit jaaro xaalis boobu ba léegi itam jëlaatuma yoon ci jël loole fa yàllaaw mu dal di gàgganti boobee ci lim ko bindal sëriñ woon ko ay njuumteem fa yàllaaw mbër ma nga déggoon mu doon bàkkoo ka jaayu keroog mbër mooma man mii la maa doon bàkku yàllaaw su jaajatun ak su jaaja jooja mooy la ma doon biral ca diiwaan keroog yow xam nga yàllaaw sëriñ ba wax sëñ asan ak way juram wa keroog jóg leen te dem yéen fu ngeen xam jëm fa yàllaaw man maa ngi doon nëbbutoo kay làkk man li ma doon tu tànk bi bëgg ma feeñal fa yàllaaw man maa ngi doon nëbbu too kay làq man li ma doon tu tànk bi bëgg ma feeñal fa yàllaaw kéemaan yu rëy ba muy tu tànk moom la ko def yàllaa ko baddil ba muy xam boo ji yàllaaw ñu delluwaat toog faat diir mbir yee tàmbaliwaat ba waajuram jaxlewaan ngir yee muy yàllaaw ñu dellu jël sëñ asan yóbbul ko seex ibra faal mu wax fa baatin bu rëy lii na yàllaaw seex ibra wax waaye juram loo xam ne ëpp na xel war maal ko kii moo la maak baatin la seex ibra wax waajuram loo xam ne ëpp na xel warmaal ko kii moo la mag baatin la yàllaawu waajur wa jël sëñ Asan bëggoon ko yóbbu feneen sëriñ Asan daldi koy laabiire yàllaawu sëriñ Asan man ko naan yow lii ma yàlla defal xam naa ko duy rabtet bul jaaxleeti yàllaawu sëriñ Asan naan ko santal lii la yàlla defal lu rëy la ci yow wallaahi yàllaawu kéemaan la kéemaan la buur yàlla ñu seede sëriñ Asan salaam ngir mu ñëw sellal ñu yàlla ba muy xalel daan na toog rek daal ne ne ca kaw nga xool ca kaw asamaaw gis leer ya yàllaahu moom daan na fekk ku bàmmeelam lëndëm ne kurus mu ñaan ca bàmmeel ba leeral lépp yàllaahu moom daan na fekk ku jëm niiraan ñu jéng ko faf mu yóbbu waa jooja fil jannaati yàllaahu moom daan na fekk ku taa am doom ba foog ne du am mu ñaan boroomam mu am doom leer na yàllaahu moom daan na fekk ku def bàkkaar ba gis mbugalam mu teg ko ci yoon ba ko kay jaamu yàllaahu nawet bu nangu nga baykat yépp a di ñoral saktab de semmal na wax seet leer na yàllaawu nawet bu nangu nga baykat yépp a ngi di ñoral saktab de semmal na wax seet leer na yàllaawu léeg-léeg nga gis waaju naan bur yàlla lim ma defal te teg bët li may wax leer na yàllaawu sëriñ asan saa su ne bur yàlla lii ma may say bët cay tege ngay gis leer na yàllaawu du wër di laaji alal ku ñëw moo dimbali yaay jant njolloor danga nañ yàlla du war di laaj alal ku ñëw mu dimbali yaay jant njolloor danga nañ yàlla yaa doon du xiisam nu Maryam wuutu woon nga jëmam ba yàlla yéegal la at wóor na yàllaawu yaa doon Zayd na Haaris sëñ Asan ku la xam du ak yow ne yaay kéemaani yàllaawu yaa doon Daawuda ak baatam bu neex ba mu yor ba yàlla séddale am Daawuda yàllaawu sëriñ Asan saa su daan way ba dënnam ba di neexaayu baatam dalay jox leeri yàllaawu yaa doon Muusa ca xar baaxam yu rëy ya mu def ba yàlla Muusa fa yàlla yaa doon lu Seex Bamba ngir sañ-sañ bu rëy bi nga am biir njabootam ku dul Seex Bamba yàllaaw mënoo digal Seexuna Seex Fallu am na mu doy mu jëf ndigal loola ngir baatin ba mënoo digal sayxu naa seex fàllu ak na mu doy mu jëf ndigal loola ngir baatin ba yàllaawo diggante seex xasan ak seex fàllu ak la ca man xeebu naa wax ca baatin boo ba yàllaawo yow doon ngay mbóot ci sun maam aadama ci mbiram yal na turam wi nga am doon leer ga yàllaaw ay mbóot la maam aadamaay ki yàlla njëkka a yabal mu ñëw ci duniyaa di leeral jaamu yàllaaw seex bàmba yit bam jotee ndigal ci buur bi ñu moom maam aadama njëkk a ñëw jaayante yàllaaw sëriñ asan bam dëddoo yit bobba léegi itam Seex Adama kii ko sàmmal mboor ma yàllaawo Sëriñ Asan bam dëddoo yit ba ba léegi itam Seex kii ko sàmmal mboor ma yàllaawo malayka ak jinne ak yóonen yi xam nañu la gàncax gi xam nan ne yow yay waayu ya Allahu malaayika ginne ak yonen yi xam nañu la gàncax gi xam nañ ne yow yay waayu ya Allahu sëriñ Asan yaa di géej tey géej gu fees ak jën mool bu la mooy mbal ga sooy wallaahi ya Allahu sëriñ asan yow sa teen bii ndox mi mukk du deey ku ñëw da ngay root ba feesal leer na yàllaaw bu ñëpp maase woon tey gëstu yow ci sa mbir lu waay sexoon yàbbi loole saf nga yàllaaw bu ñëpp rek maase woon tey gëstu yow ci sa mbir lu waay sexoon yàbbi loole yow saf nga yàllaaw cofeel gu gi imaam ci sëñ asan ni mu doy ay nattukaay mënu ko xam wóor na yàllaaw cofeel gu rëy gi ma am ci Asan ni mu doy ay naatukaay mun ko xam wóor na yàlla kon maa ngi ñaan nag ci barkeb Seexu Bamba bu wér way wi na doon ay ngëneel ci barke yàlla